5M TV Sénégal. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ba xam ngeen ne jamono ji ñu ngi ci jamono ju mujj parce que nag ñi nga xam ne ñoo di ay nit yu baax ak i borom xam-xam kan ñi ngi wuy ji seen borom loolu nag gis nañ ko jamono ji ci suñu réew ci Sénégal gis nañ ko jamono ji ñu ci ëpp ci ñi nga xam ne ay nit yu baax lan ak i borom xam-xam nag ñi ngi dem di wuy ji seen borom mu nekk loo xam ne nag lu métti la. ba tey rek moo ci mujj ñu tàggee ñu ki nga xam ne daal moo di sëriñ Abdourahmane Mbacke foofee ca Daaru Muxti mu nekk loo xam ne nag lu métti la nekkoon borom xam-xam bu mag nekk koo xam ne ku ñu ràññee ci Sénégal la yéen gis ci photo yi noonu ñëpp ci ñi nga xam ne daal ñoom nañu gis xam ne nag ko ñu baax la nekkoon ñoo xam ne daal daa njëriñ wi ci biir ak ci bitti mu nekk loo xam ne nag dëgg yàlla métti na trop boo xoolee jamono ji rek ñu ëpp ci nit nga xam daal ñoo nekk ci Sénégal ak ñenn ci ñi nga xam ne daal ay borom xam-xam lan ñu ngi wuyu seen borom mu nekk loo xam ne ku nekk

nga bàyyi xel ci bis bi nga xam ne daal mu ngi faatu loolu nekk loo xam ne daal jamono ji nag war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ndax kat jamono ji Sénégal xawoon naa bëri ay caaxaan bëri ne loolu nag la gis jamono ji moo tax nag ñeef vidéo bi kon ñi nga xam ne daal ñoo faatu yàlla jéggal te xale na àjjana ab xolu muñ seen njaboot wala ku mbokk jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV jaa ngeen jëf ci ànd beeg fii Sénégal